billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullah taala ah, sama mbokki sénégalais yi góor ak jigéen mag ak ndaw kilifay diine yi kilifay aada yi kilifay àdduna yi ak kilifa yi yàlla dénk nguurug Sénégal ba ci senegale bu mu doon góor ak jigéen mag ak ndaw man mortal di leader de la coalition Benno Bokk Yaakaar waaye di ancien militaire du conseil municipal ci département bu Pikine commune bu Yëmbal Nord dëkk fekk baax juddoo Touba fii ci Guédé maay waxtaan ak yeen ginnaaw bi ma leen jéggaloo di leen balu àq te di bal àq képp koo xam ni ba ma ko yëgee ba ma ko yëgul yoroo lool naa ko euh, tubaab dani il n'y a point de dire souligner de fait wolof njaay ni lu yëng lu ne la ko yëngale ko ëpp doole ñu toll ci situation ba nga xam ni kat ci réew mi jàmm réew mi mel na ni toll na foo nga xam ni képp koo nga xam ni patriote nga bëgg nga réew mi ngay kilifa ak ba wàll woo ci mën a féete yaakaar naa ni li waraf njaay nii magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko ku nekk war nga ci wax sa xalaat ci luy defar eh, ku ne xam na li nga xam ne moom moo xew jamono yi ñépp di ci yëy di yàbbe muy lan muy diggante suñu mbokk taalibe suñu camarade de lutte politique muy le camarade le président Moustapha Cissé Lo ñu bokk ak moom dëkk Touba bokk ak moom di ay taalibe Serigne Touba ba pare bokk ak moom it langue politique. taxoon a jóg wax yi doon loo nga xam ne ni mel na ni mi ngi bëgg a yëngal réew mi jar na koom jaru ko war nañ cee wax ba tax na maa ngi wax ak ñett ñi benn maa ngi njëkk sama wax ci le président Macky Sall mi leader bi nga xam ne mooy suñu leader ñun ñëpp du père de la nation benn bi ma koy wax ak képp koo nga xam ne ni yaa ngi ci langue politique gi rawatina nga bokk ak coalition Benno Bokk Yaakaar ni da ngay jàppale le président Macky Sall bi ci des jëm ci sama mbokki bawal bawal yi nga xam ne ni ñooy ay cadre ak ay responsable dëkk ci département Mbacké walla ci dëkk bu sell bi di Touba ak sama mbokki taalibe yépp président Macky ma koy xamal ni ko Euh, dafa am loo nga xam ne ni da ko defoon ci ñi nga xam ni ñoom ñoom la jàmbaar la woon daan xeex ak ñoom ubbil leen ay loxoom woo leen ànd ak ñoom liggéey jéggal képp ku ko ci defoon lu mën doon lu naqari lu mën toll ngir ñu ànd ci li am solo muy liggéey Sénégal woote ñépp ku ci nekk ci xalaatam ngir njariñu Sénégal ma jàpp ni kon bu demee noonu ay wax ci kaw ay responsable am nekk dem ba génn ci mbedd mi eh, mu doon yoo xam ni ku nekk ak na nga ko gisee na nga ko xalaate li ci am solo mooy président Macky Sall maa ngi lay ñaan nga woo sa njaboot waxtaan ak ñoom xool fu mbir mu nekkee nga jubbanti ko mu yem ci seen biir daf di nag waxtaan day fekk ku tooñ boo ko bëggee jàppale danga nga koy xamal ni ko yaa tooñ ba pare bu baalu di am mu baalu ngeen waxtaan ko def ko póotum biti póotum biir waaye loolu moo ëpp solo ndaxte kat wax ji mën naa yóbbu ci réew mi loo xam ni ñun ñëpp ñun ñoo koy yëgandoo te du doon jàmm réew mi président Macky sàll ma koy fàttali ni eh, ay xaritam ak am di jàmmam lu mu àndoon di xeex ba mu mettee ñoo ñooñu tey jii sori nañ la lool seetlu nañ nii tamit ña nga xam ni ñoo doon ànd doon bind ci président Abdoulaye Wade mi ngi remplacé doon ko ŋàññ di ko diaboliser daan wax lu ne ci moom ba mu ñàkk nguur gi ñooña tey ñoom ñoo la wër tey ànd ak yow nee na ñeey ñooy seeni xarit ñooy say conseiller tey kon muy situation bu doy waar woo xam ni war nga cee tey bu baax a baax bu loolu weesoo ñi nga xam ni ñoo bokk ak président Moustapha Cissé Lo Benno Bokk Yaakaar am na loo nga xam ni ñun waa Bawal di leader ak responsable politique Bawal am na loo xam ni ca dëgg-dëgg yàgg nañ koy muñaale waaye nag jot na ñu wax ci ndaxte yàgg na ñuy diaboliser euh, les leaders politiques du Bawol ci kaw rekk seen fierté d'être Bawol Bawol waaye ci loo xam ni teguñ ko feneen ndaxte bu fekkoon ni ak njubadi ay luubal alalu réew mi moo tax duma ci wax waaye yàlla dogal na ñi nga xam ni ñëpp ñoo àndoon ak président Macky Sall di awaa boobal amu ci kenn ku ñu mën a mas a jàpp ni ko luubal nga lii ci alal joxe firnde yi mu leer muy le président Moustapha si solo muy ah suñu camarade euh, Moustapha Diakhaté bu loolu weesoo itam laa bokk yoo nga xam ni itam bokk nañ ci xeex bi ba ma nga toog président mus Macky Sall waaye nga amoon nit yéene ci ñu bokkal yow liggéey bi waaye yooyu yëpp naxasaay ndax lan ndax ñun daal waa Bawol lañu te waa Bawol daal mën na ni daal am na ñoo xam ne ci biir coalition sa euh, ca dëgg-dëgg xajoo wuñu waa Bawol feeñ na ci kilifa bi nga xam ni kilifa gu rëy boo nga xam ni duma ma tudd turam nga xam ni yaakaar naa ni bu néewul moo topp ci yooyu jege na la lool mu bokk ci nguurug Senghor bokk ci nguurug Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade ba ci yow ni yooyu mooy sa bàyyi tey di la gunge di la jàppale waaye kooku seetlu nañ ni doxalinam neexul ba neexul waaye seetlu nañ ni ñun waa Bawol yàgg na di gor suñuy tànk ci suuf ci lépp loo nga xam ne sax bëgg nga ko defal waa Bawol bu ko yëgee loola du am ba ci suñu sëriñ si nga xam ni sax dañ daan am ay passeport diplomatique kooka bokk na ci li tax amatuñu ko ndax bokk na ci lël ku la génn ci loola loola nag yaakaar naa ni kooka bu ne def laa bëgg ñun daf ñuy jaaxal ba tax na kon ñun waa Bawol sama mbokki Bawol Bawol yaakaar naa ne jot na nag euh, ñu xam ni kat ku bokk ci ñun bu nekkee ci jafe-jafe war nañu ko taxawal bu fekkoon ni nag dafa fekk sax mu buubal wala mu dungal loo xam ne ci réew mi sax dañ ko mën a wax ñu man du tey ñu jàppale ko sàkkaa nag ay responsable yoo nga xamee ni seen loxo dafa set ndax seen loxo bu sëbutoon bu amoon dara lu taq lu mu néew néew kon tey bu ñuy wax ci ñoom kii di Moustapha si Lo bu ñuy wax ay saaga yu mu saaga te kenn àndul ci saaga ya kon bu fekkoon ne loxo loxoom dafa tilim duñu wax ci saaga ya waaye dañ koy woo ci yoon yóbbu ko ci kaso bi waaye ak lu mu mën di ak lu mu mën a wax loxoom set na mosut a luubal mosut a dëngal mosut a def loo xam ne naka su noonu la ci liggéey bu ñu ko jox ci réew mi ak ci bitim réew kon bu fekkee ni am na lu koy naqari loo xam ne ci doxalinu réew mi la te bu ko neexoon bu meloon ni ñëpp ànd ak ñoom ca loola di def na ñooñuy def muy seen intérêt personnel yaakaar naa ni kon coow du am waaye bëgg réew mi ak xalaat ñi gën a néew doole ci réew mi. moo ko indi mu gis li nga xam ne nii kat ay jegeñaaleem yi mu nekkal gis na ni ñu koy doxalee mu jëm ci saax saaxee alalu réew mi mu koy avertir te du loolu du tey rek yàgg na di ko wax kon ku mel noonu bu demee ba nga xamee ni eh, ay noonam yooyu muy wax loola ñooñu jóg nañu eh, bëgg koo faag faagaagal tax ñu cuq ko ci waxtaan loo xam ne seen waxtaanu léeg la woon ñu génn ko ci mbedd moom bu doon ay saaga ngir lan ngir ñu fàtte li ëpp solo ci saaga ci wax ji muy alalu réew moo ñu luubal kon day def doon yoon ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ak Moustapha Cissé Lo Bawol bokk ak Moustapha Cissé Lo ngëm-ngëm muy Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul day yoon ca dëgg-dëgg ñu yëkkati suñu kàddu nag wax ak Sénégal wax ak président Macky Sall moo tax maa ngi ñaan suñu kilifa yépp kilifa yépp ci yoonu murit képp koo xam ne am nga baat ci nga wax ci lii nga wax ko ci lii ca na ko war a waxee ak fa nga ko war a waxee wax ko ak président Macky Sall ndax jàmm am ci réew mi ndax te jàmm nag ci lenn rek la mën a ame ci ci dëgg rek la mën a amee jàmm ko ko tabax ci lu dul dëgg du yàgg te liy dëgg mooy fii ñu toll ci réew mi président Macky sàll moom gàcce ngaa laame mënul da mënul da am ngërëm lu yées ñi ñi ko jiitu li ñu amoon ndax li mu fi liggéey waaye nag benn erreur rek moo nekk ci moom mën naa am bu ñu ko wax erreur mooy dafa jaayale ay noonam ak ay soppeem ndaxte kat noonam ya fi nekkoon noonoo woon Abdoulaye Wade ba mu jóge fi diaboliser ko ba mu jóge fi ñooñu ñoo àndaat ak moom di ko noonal di diaboliser itam bawal bawal yi nga xamee ni dañoo dëggu dañoo am pas-pas dañoo am ngor ba nga xamee ni duñ fekkee lu dul dëgg ñu ànd ca waaye toujours ñu loyal ci moom fidèle ci moom du ko jàppale ngir njariñul askan wi lii daal mooy li nga xam ni man Mor Tall di ancien militaire jaay sama bakkan ngir askan wi euh, kon loolu moo waral ma ne jot na li nga xam ni moom lay yëg te nga xam ni dama bëgg bokk ci ñi nga xam ni dañ naan waxoon nañ ko waaye duma bokk ci ñi seetaan ba ëllëg ñu naan xamoon nañu ko ma bëgg pour jàmm réew mi pour stabilité réew mi président Macky Sall nga woo sa njaboot waxtaan ak ñoom waaye itam waa Bawol ñu jël leçon ci lii xam ni kat seen doom Moustapha Cissé Lo seen taalibe Moustapha Cissé solo lépp luñ ko mën a waxal ca dëgg-dëgg bu loxoom salte woon ñu mën koo wax bu ruubaloon ñu mën ko wax waaye loolu kenn xamalu ko ko kon boog njariñul askan wi rek bu ko jaralee lenn li ba noona ñenn ñi te dëgg-dëgg ñu bàyyi ci xel te bañ a rek jiital mbirum saaga wala wax ju ñaaw yi nga xam ni xol bu naqari moo ko ko yóbbe ak mer moo ko ko yóbbe te la nga xam ni ñooña la ñamu saaga bu jël wax baat yu ñaaw yooya la ñu ko wax ba tax mu wax leen baat yu ñaaw seetlu naa ni kenn tëggatu ko kenn déglootu ko wanewuñ ko benn yoon kon kat loolu day am lu muy nuru maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu sama wax ji dara jubluwuma ko ci lurul lu jàmmoo lu booloo ngir Sénégal am jàmm am stabilité te ñu jublu ci li nga xam ne moo am solo muy soxlay askan wi surtout ci nawet bii di ñëw suñu mbokki kaw gi soxla lool jàmm ak xéewal ak nawet bu ànd ak barke ak jiw jiw bu doy ak engrais bu doy wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu